ambiance ñu doon ne ambiance tàccu leen lii kon ambiance kon ambiance fekk seen ambiance ba tey kon ambiance te jalabaay waaw waaw su dee wax bu baax na neex na diggal bi sigit sa digit tabax lu ndarak waa gi loxo ca kaw loxo ay loxo sabayojona sabayojona alu bay sabaylo dabay mamam sabaylo mbedd bay samam lo dabay dablo dablo dablo waaw waaw waaw sa ñaawaay est-ce que xam ngeen ne ay gaynde ñu ngi ci ginnaaw mais dinañu ñëw léegi ah, ñu fàttaliku li nga xam ne mooy sunu gaynde bëgg ngeen loolu daf may fàttali lu yàgg lu amoon Mbàkke loo xam ne fii lañ ko defee woon jamonoy Basiru Ndaw merci beaucoup daam xal bu amee xalaat bu toll nii merci si waat lu mel ni dajale askanu ngéwël man Pape Guissé du ma mën lu dul rafetlu ko ndax lii yombul dans un instant. dajale say nawle les prestations vont commencer mais li ma jaaxal. woo waa Mbacke Mbawol woo autorité yëpp ñu teew pour ñu am 10 parrain yu teew pour ñu war leen bëggal won leen suñu aar won leen suñu cosaan artiste yi jógee feneen. dama wax ne xalaat boobu doomu Mbàkke bu ko am dañ koo war a jàppale kon du ma mën lu di ko rafetlu di rafetlu suñu mbokk yi jëwal yi nga xam ne ñoo fi teew ci bis bi yëpp muy góor ak jigéen mag ak ndaw di sant yàlla di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di balu ñëpp ak di leen baal ak di ñaan naan yàlla nañ ko teewe ay ati at ci doole Serigne Touba kontaan nañ ndax lii dañ ko yàgg a bëgg a def sunu mag sunu xalifa Dame ci xelam mu sell ndax lii day wone ne ñun artistes yi ñun ñëpp benn lan yul bu yàgg lan ko bëggoon a mébét mais ginnaaw yàlla sunu borom xel moom la ko sunu borom deey ba mën koo def képp artiste ku nekk diggante Touba ak Mbacké ñëpp yaa ngi fi lii moom kontaan nañ ci torop yal nañ ko yàggati teewee def sant nañ artistes yi fi nekk yëpp nag muy mag muy ndaw sant na ñëpp waaw di sant sunuy mag sunuy xalifa yi nga xam ne ku ci mel ni sama sama papa ah mbokk nga xam ne mooy sunu xalifa di sunu lépp ah gise ma ba baax riis mbokkum yaay layti gise ah di sant Aliou mbaay ndax ñun mënuñu dara sunu mag yi ñoo ñu ban man xam nga ne daa mbaay lee mu def ne lu am solo la baat Serigne Saliou ñoo ngi koy ñaana rek yal ko yàlla defal jàmm mu yàgg koo def kontaan nañ trop macha allah. waaw Sidi yaakaar naa ne am na solo lool parce que daam bu fekkee dafa am xalaat bi bëgg a boole artistes yi Mbàkke ñu doon benn di def ay festival euh, di ko door a commencé nii loolu am na solo trop ma bëgg nag euh, mbooloo mooy doole booy nga gis. sama groupe la tey yaakaar naa ne mbooloo mooy doole bu nu ñu ñun ñëpp teg ko fi ñu ko war a teg ku ñu war a waxtaanal waxtaan ak yow bañ bañ koo jël en sérieux pour kenn nit boole ko jël ñun ñëpp bokk ko bokk ndey bokk baay mën naa egg fu sori mais buñ ko jëlee pour kenn nit du dem buñ ko jëlee pour ñaar nit du dem buñ ko jëlee nak pour mbooloo nga xam danoo bokk ndey bokk baay def ko parce que ko dañ koy def Ndar dañ koy def Mbuur dañ koy def di dem monde entier traverse di wër fépp pourquoi ñun suñu aar bi ci Mbàkke waruñoo bokk ndey bokk baay ñun ñëpp yóbbu ko fu mu mus a egg mais kon lii nice na daam dañ koy sant di ko gërëm moo moo xalaat lii mais nan bokk ñun ñëpp rek defandoo waxandoo defandoo ñu bañ a xeeb kenn rek bañ a xeeb xalaatu kenn li xamee nan leen woon rek man bàyyiwuma ba léegi damay dëgg bàyyiwuma dara mais samay doom bu ñuy joué nii lu mel nii comme nag fan yii damaa génnoon damay ñëw seetaan leen pour gën leen a may jëm pour ëllëg nga xam ne bu ma demoon ba nekkatuma fi man ngaa génn man ngaa dee te boobaa kon xale ya jàngal nga leen li nga leen di jàngal du tee loolu après day continuer mais ba léegi fa ma nekkoon maa nga fa bàyyiwuma tanduwuma soriwuma jaajëf Sidi maa ngi lay nuyu salaamaaleykum ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi salaay salaam bëgg nag ci invitation bi ak parrainage bi. voilà parce que ñun loolu la ñu gëm ndax artistes yu Mbàkke dañu war a jàppale. daam xalaat bi mu def xalaat bu rafet la xalaat gënu ko rafet mënoon naa tëdd këram vraiment mais lépp luy avancement lépp luy jëmale culture bi kanam. daam mi ci ciy mi ngi ciy dox te lii boo gisee rek dafa rafet macha allah te wax na dëgg sama yaram dafa daw tey man su ma yoroon su ma yoroon kenn waxatu lii lii leneen ak leneen vraiment moo tax ñëpp a ci war a jàpp wax nañ ne ana autorité dëkk bi effectivement wax na dëgg mais lii dañ ci war a jàpp parce que léeg-léeg nga benn artiste fay ko ay millions yu dul jeex te ñi fi nekk ñoo ëpp culture bi li ñu xam yàlla xam ne ñi fi dëkkul xamuñu man ñoom laa naw te ñoom laa gëm te ñooy samay nit. Euh, allo allo. Euh, euh, neef. mais naataange askan wi programme bi ngeen di ci lii mooy loolu li daan wax lépp Cheikh Alassane Sène. président. coalition naataange askan wi ñu ñu investir ñu ci liste naataange askan wi. ñu nekk ci département bi nekk ci commune mu Mbacké lii ci culture la bokk. assemblée assemblée parce que bu ñu demoon assemblée nationale. lii njëkk a défendre lii njëkk a ko dëgg-dëgg mooy lii benn. nekk ci essence bu toll nii organisation bu toll nii kenn jàpp ci du rafet day daw yaram te budget bi ñuy voté culture da cee am doole dañuy wax ministre ministre ministre de la culture dañuy wax ak moom ci essence yi di am ñu am budget bi ñu ciy bokk Mbacké parce que dañ cee bokk te ñu war cee gis suñu am importance di sant di gërëm encore le président Cheikh Alassane Sène mi nga xam ne moo ñu investir ci département bi pour ñu war a mën a dem assemblée nationale pour jéem a moo tax ma ne ñii xam nañ war a ñu xam tànn ñii voté la di jàppale ndax lii du yoon boo xoolee du si benn autorité bu fi nangoo taxaw di wax leen te bu ñu ñëwee dagaan bi ñu ne mën a mën a mën a mën a bi lañ war a baax jàppale askan bi waaw gërëm waaw man maa fi teel mi yaa waaye jigéenu daam baay sangu si di jaxate waaw maa ko teewal man la yaayam waaw bis bii nag ñu jàppale baam daam baay nag ba mu am jom waaw moom de lu mu yëg rek dana ci def lu xaam lu mu rek dana ci def lu xaam rek man mi yaayam ma ñëw teewal waaw fu ma ko xamee yaru artiste yi nekk ci kaw war a presté il faut ñu ñëw. tubaarka ànd ak ñëpp nag barke sëñ Fallou na solo yaru na baax na. merci mais daam nag papaam dafa nekk sama xarit. représenté par maman Fatou Diatara wax dëgg yàlla moo nooyal yëpp wax ah, nooyal yëpp. waaw les pongo man ana ngeen. waxtaan nag yàlla dogal nag xamala bi muy def nag boole sama bopp. dafa daw ndax xamul tax li gën a daw suma yaram nag mooy ne dama ñëw fekk si euh, doomi Mbàkke gis fi produit yu mel nii gis fi talent yu mel nii gis fi maa ngi dégg euh, président sañ may sekk loo xam ne ni lu yéeme la loo xam ne ni ci Mbàkke bi foogoo woon am na Mbàkke kon ces gens là ñoo di produire fi ci boulevard bi en plein air ah doon na loo xam ne lu daw sama yaram ndax Mbàkke waroon naa weesu ndax suñu doomu Mbacké yi sont dignes de représenter Mbacké n'importe où au Sénégal et dans le monde ay talent yu sur la finesse ay talent yu wóor kon Dame su defee lii da ko war waa Mbacké aujourd'hui amuñu droit tëdd ci lal dañu am droit ñëw dund ak ñoom am ay projection yu gën mag yoo xam ne nii bu ëllëgee dootuñu ko defee ci boulevard war nañ ko mën a defee feneen cadre bu gën a approprié cadre je suis de la coalition bunt bi au niveau communal ma nekk fi doon doomu Mbacke juddoo Mbacke yaroo Mbacke ah doon fi koo xam ne nii aussi bu séq ak nit ñi jàmmale ci wet gu nekk ah di nag les couleurs de la coalition Bunt Mbacke nag yàgg nañu am ay député mais député yi ñu fi am yëpp seeni li ñu wax man naa wër liñ fi jëf kon daanaka taxaw ba war ci Mbacke amuñ amul loolu moo war nag moo jóg xar sama tànku tubéy déposé sama candidature xam ne war naa mën a défendre Mbacké ma jéem a dugg hémicycle pour li nga xam ne moom lañ yàgg a jooy te Mbacké moo dëkk yëpp Gossas raw na ko Fatick na ko dëkk yëpp raw nañ Mbacké léegi te loolu li ko waral mooy yaa fuusug responsable politique yi yaa fuusug député yi fi daan jaar yaa fuusug suñu administration bi looloo tax Mbacké amul dara loolu nag moo tax ñun ñëpp dañoo doon ay jeunes

Euh, ñoo ngi koy sant di ko gërëm moom itam di suñu di sant suñu papa May Seck président conseil communal de la vraiment di ku baax événement bi début on fait la ko jàpp ñu ñu conseil di ñu jàppale. mais nag euh, comme ni ma ko waxee sànq fii moom ku ne jekkoon na fi président jekkoon na fi monsieur le maire jekkoon na fi député jekkoon na fi waaye nag euh, ñun li li man mooy liggéey rek ay ndaw lañ dëkk ci dëkk bi day liggéey rek woote. ñoom moom suñu suñu suñu événement moom suñu bopp moom suñu aar bi moom suñu suñu suñu voix yi moom suñu galan yi du dëgg euh, euh, ku ñu defalu baax ñu wax ko xasuñu kenn xarabuñu kenn waaye tamit nag mm, mm, ragal ku la mere day tere wax dëgg tey it nag si xam daan Mbàkke waxoon ni euh, ku ma defalul dara du ma la waxal dara buñ sañoon buñ wootee fii autorité yi nekk ci dëkk bi danañ ñëw soutenir ñu ndaxte buñ ko defalee defalul ñu ko seen bopp lañ ko defal waaye xëy na daanu dajo suuf waaw liñ bëggoon a génne yëpp génne ko parce que amuñu moyen événement bi moyens yi dafa des parce que xam nga dañ topp nañ ci autorité di daw ba dernier moment gis ngeen fi gisu leen fi benn autorité te fii ku ne jekkoon na fi kon ni koy waxee seen i doom ñooy def ko pourquoi bu ñuy def ñu jàpp ci sax avant événement bi sax parce que nit boo koy dimbali danga koy dimbali fa mu safee comprendre nga noo mais nag ñun dañuy liggéey rek amu ci kun demul ci moom amu ci kun waxalul maay wax ak yow man Dame Mbaye man amu ci ku ma waxalul ci télé laay wax wala ci internet laay wax ñoom dañ kee war a jàppali parce que culture la ñuy def te dañ ci am part bu baax a baax a baax du dëgg comme ni ma ko waxee sànq fii rek lu ñuy def lu ne ñun ñoo ciy jiitu seen meeting yi ñuy def sax bu ñu koy def sax ñun ñoo ci jiitu du dëgg tëggkat yee fay jiitu waykat yee fay jiitu taasukat yee fay jiitu fecckat yee fay jiitu ah mais après buñ faloo rek dañu daal di fàtte. non xale yi moom incha allah nee na leen damaa bëgg ñu insister ci troupe bi. Mbàkke am troupe troupe boo xamante ni bi danse woy fecc tëgg taasu lu lu aar lu ñuy def ci aar rek ñu continuer ko def ko liggéey pare nañ pour def yeneen édition non ragal du jéggi raay ragal du jéggi raay du dëgg man chaque jour sax bu ne ay ba chaque jour ma tëgg du dëgg parce que sama liggéey la du dëgg ku nekk sa liggéey yow yaa ko maîtriser yaa xam ni nga koy defee du dëgg lii nii suñuy doom suñuy rak suñuy jarbaat suñuy xarit suñuy naataango lan dajale pour bëgg leen a bëgg leen a rassembler ñu mën a am ci yuñ jàpp mën a sox parce que culture bi ñu ngi nii tey fii bu ñu amoon salle bu salle boo xamante ni bi salle bu baax la bu ñu mën a bu mën a defee événement bi fa lañ koy def def entrée mu mën ñoo jëriñ buñ paree mën ci am loo xam dañ ci mën a fay suñuy frais am déet amuñu salle de salle de spectacle amuñu salle de répétition fu ne lañ doon daw ci école di jëw ñu di ñu dàq ñu bëgg a répété mënuñu mënuñu am fu ñu répété comme Omar fay ni mu ko waxee sànq daj na loolu ci répétition yi théâtre de Verdi bi sax avant ñu cee jot rek danoo lu ne lan daj danoo sonn. ndax événement bi préparer nañ ko si une courte durée mu doonoon lu métti mais nag comme ni ko daam waxee moom bi mu amee initiative waxtaan si ak ñu ñu ànd ak moom si liggéey bi vraiment xawoon nu métti trop mais nag comme une première la faaw mu métti. ndax ba lay neex faa mu metti kon tey bu ñu demee ba suñu borom def ba ñu dem ba dugg ci ba génn ci te lépp doon jàmm kon dañuy santaat suñu borom bu baax a baax a baax a baax waaw ndaxte événement bi xañ na ni ñu bëggoon mu mel ko dëgg-dëgg daay bi bëggoon ko yóbbu eggu ko ndaxte am nañ défaut de moyens di début à la ndax ku xool fii tey li ñu mobiliser si ay nit ak artistes li fi ñëw ci ay talent ak liñ fi déployer suñu ay propres moyens te gisuñu fi yenn autorités surtout ñuy lancer un appel si monsieur le maire bi xam ne tey waroon nañu appuyer waroon présence am soxloon nañu ak yeneen autorités yi tey it duñu ñàkk ñu mën a am neneen nu ñu war a mën a def pour suqali suñu culture te ñoom ñooñu ci war a appuyer kon tey affaire bi sant yàlla rek comme dem nañ ba egg fi nga xam si ni def nañ ko ci jàmm génn si ak jàmm daal. liñ ci dépensé moom bu weesoo comme man ak daam mi nga xam si ñoo si nekkoon si bopp bi ak ñi ñu si doon jàppale vraiment métti woon na trop ndaxte événement bu toll nii ñu ne ñi ko initié rek ñoo ci nekkoon di ci def seen propre moyen ndax tey yéen yéen a ko tegal seen bopp bët li fi ñoo si autorité bariwul te gis nga li ñu defoon réserve kenn ku ne seete nan la. pour nga jàppale ñu mais nag xañ na comme dugg nañ ba ci biir duñu arrière mais métti na trop le plan financier te it si organisation bi tamit métti na ndaxte avant lii waroon nañ def ay répétition pour maintenir ñu group au niveau ndax groupe bi dañ ko bëgg a maintenir mu nekk au niveau national voilà tey Mbacke war na am groupe boobu bu demoon war a dem ba festival international Mbacke waroon na mën a génn groupe boobu ndax ay talent ñoo fi ay artistes ñoo fi mais nag amuñu moyen bu ñu jàppale kon autorité Mbacke ñoo ñu war a gestu jàppale ñu bu baax a baax a baax xam ne ñun seen ay doom lañ ndaxte li ma gën a jaaxal surtout waa dëkk bi tamit ñu ma leen di gën a ñaaxaat ñu gën a am yar. ci organisation yi ndaxte nit déployer ay moyens indi fi artiste te day mel ne des fois soxor la day mel ne soxor la ndax dañu gis ay artistes jóge ailleurs dañu joué ba mu jeex nit ñu duñ jóg duñ indi benn bruit mais fii tey rek terrain bi avant ñu fiy jot daanaka xamoon naw ay incident ba nañu mujj dem wuti autorisation à la police xam nga def lu ne kon war nañu mën a jàppalewaat gën a jox gëdd géwél yi gën a jox artistes yi seen gëdd vraiment loolu ñu ngi koy ñu ngi koy jooytu si dëkk bi quoi